li nga xam ne ni moo ñu fi indi woon mooy euh, ministre de affaire étrangères di Amadou Ba dañoo dégg jamono yooyu ci ginnaaw mu génn na collecté nañ maanaam li nga xam ne ni mooy ndimbal li doon defal Modou Modou yi te ba noppi it Modou Modou yëpp jot nañ seen ndimbal ndax euh, état bi joxe woon na plus de douze milliards cinq cent nee na joxe nañ onze milliards et quelques yi kon Modou Modou yëpp jot nañ seen ndimbal. ah ñu di leen xamal ne loolu dara amu ci ndax moodu-moodu yi nga xam ne ni ñoo nekk fii ci diggante Touba ak Mbacké ak bi ba ci suñ représentant yi nekk Louga Ali Dem ñoo ngi huit cent trente quatre personnes yoo xam ne nii jotuñ ci ndimbal li kon su taxawee na jot nañ ci ndimbal li loolu du wax ju teg wax ju teggeeku la Ousseynou Guèye mi nga xam ne moo jiitee AMB immigré international mi ngi ci trois cent et quelques inscrits yoo xam ne ni bindoon nañ ko. te bat léegi nii may wax ak yow kenn jotu ci ñun ñi ñoo ngi woon ak plus de cent et quelques personnes moodu yoo xam ne ni fi lañ impacté woon fi lañ nekkoon mbas mi téewoon lañ fi jotuñ ci jotaanuñ kon bu taxawee ne état bi joxe na onze milliards et quelque ñu di ko waxal ne loolu amut te Amadou Ba ci boppam man maa dem biroom ak délégation bi ma àndal bi ñu demee laaj ko na ko ñun de dañoo buggoon affaire bi yi mun nañu woon billets yi bu soobee yàlla état bi dana ci def subvention deux cent euros Air Sénégal bàyyi cent wax jooja dara amu ci ba tey billets yaa ngi jar mille euros ba léegi léegi jii la billets yi gën a cher te man yi li ma ci gën a jaaxal mooy billet bi France laa ko jëndee trois cent cinquante mille francs laa ko daggee aller retour valable six mois fii te ba noppi Air Sénégal la te ba noppi Air Sénégal ñi ngi jaayee ay billets ba léegi nii may wax ak yow ay cinq cent mille six cent mille. kon maanaam affaire yi am na lu nekk ci biir ba noppi affaire ndimbal lii keroog bi ma ko posé question na ko monsieur le ministre ñun ñi nga xam ne dañoo nekk Sénégal mënuñoo dem te am ay jafe-jafe muy sunu problème mu billet ak problème mu xaalis bu ñu daggee billet ak sunuy vol yu dematut léegi ndimbal li nga xam ne état bi daf ñu koo dimbale ñun ñu nekk Sénégal dañoo buggoon léegi jot sunu wàll daf maa xamal carrément na resuma leen yéen ñu nekk waa Sénégal man ñi ma res affaire étrangère ma jox nii la ma ko waxee. te bi ma koy wax ñi ma àndal a ngi toog test yi am na test yi ñu lay fayloo maanaam boo xoolee ay tappali dëgg ci nekk lii de mooy reçu bi nga xam ne nii faye nañ ko kii de États-Unis la jóge mu ngi nii sunu ginnaaw muy xaadim jum ñu fayee ko ko soixante-dix dollars lii maanaam mooy reçu bi nga xam ne nii moom lañ ko jox kon xam nga ne lii damaa yaakaar ne bu fekkoon na état moo koy def am naa yaakaar ne reçu bi du demee nii test bi ab photocopie la de tur lañ ci bind ak sant tur ak sant dong lañ ci bind daan ne ko oh, demal boo demee ñu defal la benn raakool na la bu soobee yàlla demal sa kër danañ la yónnee test bi jox ñu benn numéro téléphone numéro téléphone bi ñu lay laaj bu la neexee jox la benn numéro leen parce que ay SMS lañ la wax wala ñu ne la WhatsApp léegi man mi nga xam ne ni damaa jógee euh, France am feebar bi jëm dëkk bu ñuy wax Koyaana jaay ca àll ba amul courant. amut whatsapp amut dara léegi nga ne ma léegi danaa la yónnee test bi foofa men bu ma yoree feebar bi xanaa kon dama koy wàll mboolem dëkk ba yëpp dama koy wàll aussi sama doom yi nga xam ne ni ñoom laa fekke kon mooy lay xamal ne ay tappale dong moo ci nekk hôpital jéemul bi dañ daan def ay test boo àggee onze heures bu ñu la defalee test bu trois heures yi nga jël si ko fu mu tegu te ñoom eh, ñoom ñële dañ ne dañ ne soixante douze heures lañ la lay la test bi génn te hôpital bi boo defee trois centaines de personnes la ñuy jël par jour kenn ku nekk quarante mille nga am na sax ñu ne ma ëpp na cent personnes kon maanaam muud yi ci boppam dañ leen a tegul fenn. parce que am na ci sunu gaa yoo xam ne ni wàcc nañ biñ leen laajee ndax da ngeen di def test dañ ne dañoo duñ def test lu tax du ngeen def test ñu ne yoruñ xaalis ñu leen pourquoi yoru leen xaalis ngeen jógee Espagne waa Italie ne yoru leen xaalis am na ci gaa yoo xam ne ñu ngi fii di ma dégg dañ ne duñu def test tey duñ ko def ëllëg dañ leen faa téye pandant deux heures de temps ba vol bi jeex leen wax ndax yoru leen ku leen mën a yónnee transfert xaalis quarante mille kooku na leen du ma ko joxe tey duma ko joxe ëllëg ndax sama njaboot maa leen war a jox xaalis mais waruñ maa jox xaalis lañ ca teg mooy dañ leen a bàyyi ñu dem ñu ngi fii kon xam nga ne loolu ay tappale da cee am ah, tale tappale yi li nga xam ne ni moo ci nekk mooy sunu député yi dañ na diaspora bi euh, Macky Sall daf na woon da koy def quinzième raison di Sénégal ñu am quinze députés maanaam quinze députés yëpp douze yi ci Benno Tas Yaakaar lañ bokk li tax Benno Tas Yaakaar parce que Tas Yaakaar rek lañ fi nekkee ci Benno Tas Yaakaar lañ bokk trois députés yi donc ñoo nekk opposant nga xam ne mooy Mor Kane Nango Seck ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Mame Diarra Fam keroog ba mbas mi amee ba léegi benn wax wala benn jéego bu ci def amul moor moo Mor Kane sax am na ay ay information yu ma yónnee comme quoi que moom mi ngi ciy wax wax dëgg yàlla ak ay rajo ak ay audio te am na ojo yu ma yónnee yoo xam ne nee na ma test yi nee nañ ko carrément existé wuñ ku koy def ku nekk daf lay neex da ngay réew ma nga jëm ñoo koy laaj ñu di ko def bu ko réew ma laajut waroo koo def ba noppi test yi nga xam ne gars yi defoon nañ ko Italie am na ci ñoo xam ne bi ñu wàccee dañ leen a wax na leen test yi baaxut te Italie lañ ko defee te rang bi xoolal muu di tubaab bi fële lañuy jaar di jàll de même test lañ yor tubaab bi même test lañ yor dégg nga même test la tubaab yi yor léegi yow mi nga xam ne sénégalais nga ñun la sa test baaxut nga leen lu tax ñun la da waroon a dem ca ambassade Italie ba ba nga xam ne ni moo nekk Milan mu dóoral a kaase noonu lañ jàppee moodu yu bëree bëri di leen fayee ko ay test te gars yi bu boobaa ñoom it gore ndeysaan xam nga am na ci ñoo xam yi xamuñ ci dara te test bii ñu génne le 16 lañ ko génne maanaam xoola bi ñu a génne bii lañ njëkkoon a xool leen ni ñu bindee jam ñaajo deuxième yaakaar naa yéen ñi jàng xam ngeen ne jam ñaajo kenn di ko bindee deuxième deuxièmement xool leen négatif bi négatif xool leen ni ñu ko bindee kon lii lépp moo lay waral ne ay tappale la ay tappale yoo xam ne ni état bi mi ngi koy teg moodu moodu yi te wax dëgg yàlla munuñ ci dara di ñaan nag xëj na aussi dama yaakaar ne xëj na président Macky Sall yëgu ko ndax xëj na tappale yi bu ko yëgoon ndax lii benn société donc bu nekk bu nekk aéroport la yor fa bureau bu ndaw nag yor ab raakol rek boo dikkee mu teg la ko sa bakkan daan na la waa léegi demal ba fekki fan kon xam nga ne lii maanaam yéen ñi dama déglu xam nga ne wax jooju du wax ju yenu maanaa muy ay tappale sunu sunu député yi nag moom dara la ñuy jëriñu ma di leen xamal ne Demba Diop ma nga dëkk Nayobe rakkam rey nañ ko bër rey nañ ko far yu passé biñ ko reyee dañ koo dugal ci benn canal pendant quinze jours ñu di ko wër gisuñ ko keroog ba ko français yi trouvé woo mag ji na ko sa rakk ji nga doon wër gis nañ ko ñu woo ko mu ñëw rakk ji mi ngi tudd Maja Diop mi ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Nayobe ci région de Diourbel biñ ko ko wonee na ko koor baa ngi nii mun leen waaw ñu police scientifique moom la ma wax na ñoo woo suñ consul ba fa nekk bañ ko wooyee laaj ko na ko ah yow de am nañ fa doomu sénégalais bu fi dee mu daal di wax ak ñoom la mu wax ñoom daal di jël numéro frère bi frère bi neena ba sànq ci suba la gëj a dégg maanaam euh, consul ba benn jéego defuñ ko ci démb la ma yónnee lii di demander procureur mi ngi nii dafa def demande procureur xool leen France di ko demander ngir yàlla ngir njox mu corps bi. pour bu am deux mois maanaam état Sénégal ñu ne ñun am nañu député am nañ ñoo xam ne ñoo ñu toogal bitim réew di ñu jàppale di ñu defal dara te maanaam corps bi ñaari weer a ngi ay mbokkam di ko xaar mënut a fexe bu ñëw. affaire bi ñun ñëpp ñoo ko war a jooyandoo ndax ñun ñi ñooy soxnay moodu moodu yi te xam na li lu metti jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ñoom xam nañ ko ndax su fekkente ne dañuy dem test yi nga xam ne moom lañ leen di defal mu metti lool bu ñuy ñibbi si test leen di defal mu metti lool te xam nañ ne jamono ji neexatul te Macky Sall xanaa lii yëgu ko su ko yëgoon dina si am loo xam ne dina ko si da jafe-jafe yi ñuy dund xam nga ne ku sa borom kër daan euh, yóbbante weer bu jot mu yóbbante la léegi da nga toog 3 mois yoo xam ne léeg-léeg doo jot yóbbante xam nga ne loolu metti na man ne ma ne na xanaa bu fekkoon ne président de la république yëg na ko dana si am luñ ci ndax keroog ban njëkkee wax ne ban koy fal Moodu Moodu yee ko njëkk a fal keroog ban ban waxee ne Macky Sall gañe na Europe la njëkk a déclaré ne ñoo gañe ñëpp xam ne Macky Sall moo gañe jafe na trop da ngay taxalaatu lu nekk nga def ko say doom di jóg di daanu lu ne nga def ko ñuy jàppale seen xam ne xel ku daan def te ba mu ku daan def weer bu jot nga yóbbante nga toog trois mois yoo xam ne léeg-léeg da nga bëgg a yóbbante te doo yóbban neexul si xol waaw neexul ci seen xol suñ sañoon nan ko daan defe lan ko daan defe mais jamono ji metti na metti na si ñoom ku nekk ku leen gis sax xool leen beneen nit nga leen di nga leen di xoole ndax xam na ne ñoom ñii beneen nit lan